jot suñu vidéo mu bokk ci avocat wu Ousmane yi mu am benn information bu bees euh, est-ce que mën nga ñu xamal lan mooy information bu bees boobule. waaw Pape Alé maa ngi lay li bees mooy jamono jii ñu toog dañoo indi benn mandat de comparution maanaam beneen convocation. ñu ñëw jébbal Ousmane Sonko fii ne ko euh, doyen des juges d'instruction maanaam le monsieur Samba Sall bi yor dossier euh, nekk euh, premier cabinet d'instruction daf kaa soxla tey jii a à 17 heures loolu mooy xibaar bi ñu jot may fàttali ne Ousmane Sonko mandat de comparution bu ñu ko joxee mooy dafa war a comparaître libre maanaam moom moom boppam comme ni muy jotee convocation mandat de comparution du mandat d'amener mandat de comparution convocation simple la Ousmane Sonko mandat de jamono jii mu ngi ciy loxo yoon kon moomul boppam kon mandat boobu tey jii war nañoo laajte lan moo tax mu ñëw benn ñaareel ba mooy Ousmane Sonko ba xibaar bi ñu mujjee jot amul dossier premier cabinet amul benn dossier bu ko concerné premier cabinet kon lan moo tax juge premier cabinet di ko jox dossier xanaa dañ ñoo bëgg a xamal foofu ne soit le euh, dossier bi nekkoon huitième cabinet lañ ko dañ dañ kaa jox jëlee si loxo juge bi jox ko premier wala dañ koy jéem a forcer. di ko jéem a xeex di ko jaay doole pour jéem kaa dugal ci dossier boo xam ne yoonam nekku ci maanaam dossier bi nga xam ne ay militant am lañu ko jàppee te mu nekk appel à l'insurrection bi ñu wax ne moom ko jéem a xoxatal la ñuy wax daal euh, ab Pape Alé mooy xibaar bi ñu jot ko commencé woon ñett bi ñuy wax nii ñu ngi koy arrêté démb notifié garde à vue pour pour participation à ay manifestation non autorisée ak trouble à l'ordre public muy beneen dossier tey jii bu ñu waxee ni am na beneen dossier bu nekk premier cabinet kon moom ubbil nañ ko ñetti dossier loolu nag dafay waree ne nag en ah, en réalité li Ousmane Sonko di wax képp la dëgg moo am ci tentative de liquidation lañ nekk te ubbil nañ ci ay dossier pour jël paaka teg ci potam te loolu gànnaaw tey bi gànnaaw ëllëg Sénégal duñ gànnaaw tey Sénégal duñ gànnaaw ëllëg. mais lan lañ ñëpp di ñun ñi sax xamuñu ko loolu la ñëpp di laaj parce que dama ne la mandat xam nga mandat de comparution wala convocation kenn du si def liñ lay si liñ lay reproché wala liñ lay toppee jamono ji li ñu jaaxal mooy fiñ ko fekk fi nga xam ne fi mu nekkal moom moomatul boppam moomat yoratul liberté ñu ñëw taxaw di ko jox mandat de comparution mandat de comparution ko koy jox dañ koy jox ko léegi këram da nga koy jox ko nekk si liggéeyu kaayam wala koo xam ne mu ngi moom boppam mu ngi si restaurant wala ko nekk mais koo xam ne mu ngi ci loxo yoon nga ñëw taxaw di ko jox mandat de comparution loolu tey na xel dama am na lu ñuy préparé am na lu ñu nar te loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Ousmane Sonko incha allah complot bi gars yi nekk ne duñ ci waññu ginnaaw ñu dinañ leen wan ni complot bi ngeen ci waññu ginnaaw parce que Ousmane Sonko dégg naa léegi ñu ni ñeenti nit génne nañ àdduna ci mbir mi ñaar génne nañ àdduna si si Casamance yeneen ñaar nit génne nañ àdduna Dakar loolu nag buñ ci jugul àddu ci réew mi fi mu jëm lëndëm na trop les lendemains du Sénégal sont sombres nañ ci jug wax lii wóorul tey wóorul ëllëg bu fekkee ñàkk ñàkkalu adversaire mooy tax ñu pare pour rey Sénégal yëpp ma xam ne ko deret du bëri dina tuuru. Juste un petit résumé maître euh, quelle est la situation. ngeen abonné fii ci Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo